waaw ndaje mi maa ngi nuyu bu baax maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñi nga xam ne yëpp ñëw nañ fi li waral ndaje mi rek mooy ah, ñëw fekk ñi nga xam ne dañoo nekk sanc ndongu ñu nekkoon si ay difficulté yoo xam ne maanaam si wàllu lotissement bi ñu ñëwoon ñu ne ne ñu ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom discuter ak ñoom pour xool nan la ñuy mën a def ba jafe-jafe yu ñu nekk ni ñu indil ko saafara waaye lii nag biñ koy def dafa fekk d'abord ñu waxtaan si ak kilifa département bi muy le préfet gannaaw bu ñu woowee ñun woo meeru Nioro bi nañu tasi ñu waxtaan pour ñu wutal saafara jafe-jafe yi nga xam ne yëpp nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci béréb yoo xam ne loti ko ñu wutal ko saafara gannaaw rencontre boobu nag man ak meeru Nioro ak préfet si leen jëlee initiative ne nañ bokk ak Nioro pour ñu dem waxtaan ak population bi li ma si waroon defit pour moom mu yëg ko def naa ko woo naa ko moom téléphone wax ko ko woo adjoint muy wilaan wax ko c'était que pour réunion bii ñuy def ñu bokk ndoor ko def pour que askan wi bi ñu gisee ñun gis leen ñoom ñu gën a rassuré léegi nag yow constaté nga ko constaté naa ko li ma waroon def yëpp ci côté boobu def naa ko donc daal objectif réunion bi tey jii moo doon ñëw waxtaan ak askan wi wax leen ne leen lii leen leen bëgg a loolu moo ñu indi jëm poos juróom téeméer la jëm proxaan mètre juróom téeméeri mètre lay wax loolu mooy limite Nioro leneen lu génn loolu rek moo Nioro moomut leneen lu génn loolu Nioro moomul lotissement boobu aussi bu ñu ko ko joxee décret bi dana gis ne lotissement bi point 99 101 100 nangam foofu lañ kale woon coordonnées yi nga xam ne moom moo génne loolu pour mu dem donc loolu mën nañ ko ko faciliter document yi bu seetloo Nioro ba ñu njëkkee def tali am na fi ñu ko yemeloon fàttaliku ngeen ko foofu la Nioro yem bi bu jóge tali bi jógee ko nii jëm Daaru Salaam fàtte ngeen fi mu ko fi ñu ko yemale woon sa boori collecteur ba sa satadoo ba foofu la yem collecteur yene foofu am na boo xam ne Jim Mamar DG moo ko moom meeru Nioro am na beneen bu ko jëlee boo xam ne maam Babou Gueye moo ko moom Birima ko moom moomoon jaay ko Birima mooma ba muy soxla kayit poos koto moo ko ko joxoon maam Babou bi ñu koy defar kayit ñun ñoo ko ko defal waa bon nag bu ñu mënee defal kayit ci toolu biri ma te diggante toolu ma ba ci daaray papalaay loolu yëpp ñooro ñoo ko lotise te ba léegi ñun ñu am pouvoir mën a joxe kayit sa toolu Birima ba loolu am na lu mu tekki walla bon loolu dama doon wax rek ne moom bu toogoon mën a ko limi yi naa la may kayit nga xool limi di fi mu commencé ak fan la yem ma facilité la loolu parce que bi ñu ko ko facilité dana dana gën a waaw bi ñu leen dégloo da nga gis ne fekk nañu askan woo xam ne jàpp nañ ne ñun war nañ ne mën a ñëw nekk ci seen wet pour jàppale leen bu ñu tënkoo yëpp maanaam discours yi nga siy dégg da lay won ne la ñoom yàkkanti ne ñun ñu ñëw jege leen pour jàppale leen maanaam ñenn ñaa ngi wax même bu doon léegi léegi lañ ko mën a def ñu bokk ndoor ko def léegi léegi bu dee suba la it noonu waaye ki lay wax léegi léegi xam na ne léegi léegi sax mënta nekk waaye da lay won ne la yàkkanti nañ rek pour nga ñëw. donc daal li ma seetlu ci seen ci seen tontu ak seen waxtaan diggante ak ñoom mooy ne ñoom bëgg nañ ñun ñu nekk ñëw nekk ci seen wet pour gunge leen pour jàppale leen pour que jafe-jafe bu ñu nekk ni ñoom ñu génn si waaw loolu laa ci seetlu. waaw léegi xam nga léegi lépp waxtaan la ah, tey jii bu fekkoon ne tey meeru Nioro bi yoon permettre na ko mu mën a lotisser sanc ndongoog yëpp dama ko koy bàyyee na ko lotisel parce que man awma sa benn problème bu demoon tey ba ñu bëgg ko it man awma sa benn problème parce que ñëw bii pour jàppale leen rek la comme moom si suñu waxtaan wane ne ne moom bëgg bëgga mooy jàppale waa Nioro ñun suñu bëgg-bëgg mooy jàppale askanu Nioro te moom tey ji moom la Nioro fal man waa Daaroo ma fal bon tey man bu ma jógee ko Daaru pour ñëw jàppale si askanu Nioro parce que dama faa bokk rek waaye moom mi nga xam ne ne moom la ñu jox ndombal tànk li te amul pexe pour ay nitam ñun yàlla def pexe yi nekk ci ñun maanaam pexe yi ma bëgg a wax mooy moom amul suuf bu mu leen jox ñun am nañu suuf bi ñu leen jox ab waxtaan bu ñuy def war nañoo mën a permettre ba ñu yëwén si ba ñu ba ay nitam duñu nekk si coono donc tey moom bu bëggee ne mën na ko def waxtaan it nekk fa lalu nekk fa man amu si benn problème ndimbal leen rek la ka moom mu defal leen ko wala man ma defal leen ko it man benn lay nekk si man maanaam ñun ñu lotireel leen ak moom mu lotir ko man benn la si man ndax dana nekk benn si askan yi loolu man déedéet du sama mbir waaye man buy men meeru Daaru Salaam ka moom mu lotir ko ak man mu lotir ko benn la ndax man bu ma ko lotiree waa Nioro yi laa koy jox te moom bu lotiree waa Nioro yi la ko fas yéene jox bon man def si ak kii rek benn la si man. Hmm. non litige litige bu fekkee ne li ñu waxante. moom respecté na ko man ma respecté ko litige du fa nekk bu fekkee ne li ñu wax maanaam cër bu biñ ci war a am daaroo bàyyi nañ ko xel li du am benn problème maanaam ku nu benn wala ku bëgg a ñëw foqar ñi loo xam ne ñun la ko yoon jox te doo si wax ak ñun loolu lañuy bañ kenn du ñu benn loolu dama bëgg mu leer ci ñëpp ne kenn du ñu benn kenn du foqar ñi it loo xam ni daaru moo ko moom te waxtaano seeg daaru lu waxtaan mënta regle nag amut ndax adduna bi même buy boy guerre bi di takk waxtaan rek sa la ñuy mujj pour mu régler wu. bon nag bi ñu jiitelee waxtaan day njëriñu askan wi bu ñu jiitelee waxtaan soog a jëf day nekk njëriñu askan wi loolu moo tax man ma jiital waxtaan wii ak askan wi pour bala maa jëf bon ñu nit man ak moom bu ñu jiitelee waxtaan pour jëfal askan wi dafay gën a rafet dafay gën a baax waaye boo jëfee nag soog a ñëw wax si maanaam te mën na saa nekk. waaye lii ñu def bu njumte amee dañ koy séddoo tey li ma ñëw di waxtaan ak waa sant ndong ndax ma defal leen wala diñ leen defal buñ ne waaw ñu bokk ko def bu amee njuumte dama ci am sama wàll ñoom ñu am si seen wàll waaye bi ñu waxtaanu nag lu ci mënta génn ci njuumte wala leneen man rek la man rek la loolu moo ñu moo ñu indi Mm. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. non xam nga léegi boo ko xoolee ah, xaj na ba mu koy def ci campagne la nekk si campagne la nekk et normal pour mu def programme wax ne bu ma bëggee lii la idée bi rafet na ne dama bëgg def lii pour jàppale sama dëkk lu rafet la. waaye lu ne da nga koy natt boo damay def lii dangay nat natt li mu war a àndat kuu bi loolu xam naa ne xam na ko am na ko waaye fi nga koy defit nag foofu danga koy bàyyi xel donc fi mu ko nattoon diggante Daaru Salaam ak Nioro foofu ñun li ñu jàpp mooy bérébu dëkkuwaay rek la mën nañ fa xaj xajal ay mini usine waaye foo xam ne trois 300 hectares lañ fay buddi pour def ko loolu moom non léegi nag si lu ñu bokk ñun. muy man ak Samba Sall maire Daabali mën na mën nañoo xoof daaru xoof Daabali xoof daaru tuuti jël Daabali tuuti boole ko jox ko mu defaral Nioro day nekk njëriñ boo xam ne aussi njëriñ Nioro lay nekk. loolu yëpp bu waxtaan maanaam intercommunalité diggante man ak moom ak Daabali mooy li ñu war a def pour askanu wi noppaloo intercommunalité mooy man ak moom maire bu ma waxee man nag. du safaa mais mairie ñi daaru laa bëgg a wax ak mairie Nioro ak mairie Dabalé intercommunalité boobu bu ñu amee lépp lu ñuy jog pour defar ko dafay yomb parce que lu bëgg a dem loo xam ne tey jii moom moo am capacité financière bi pour def ko amul suuf ñun ñu am suuf maanaam day indi ñeex man mi indi cere ñu boole jox gaa yi ñu lekk waaye boo gàddoo sa ñeex amoo cere naan ko rek ngay def waaye doo ko moo am foo ko sotti man nag bu ma amee sama cere ji yore ko te cere ji mooy suuf si même bu ma amul ñeex ma def si ndox lekk sama biir bi dana fees bon moom muy amee ñeex mi ñoom tuddee ne am na ñeex mi il faut que mu waxtaanee ñi amee cere ji ñu defar ko ba mu baax pour que tey jii ñu askan wi mën ko jëriñoo ne ma war a jëriñ. am na si koo xam ne xaw na ma bëgg a jooyloo bu ma la waxee sama diggante yàlla rek. ndax tey man père de famille laa am na si koo xam ne bu muy wax man xaw na maa bëgg a jooy ndax la ko génnee fa mu nekkoon ba mu ñëw toog si si ak condition yi mu nekk ak njabootam loolu wax dëgg yàlla lu métti la bon nag ñooñu tey di dañ leen war a trouver solution dañ leen wara a trouver pexe ndax man baay laa am naa kër te baay laa te moom it am na kër te baay la te sama njaboot nekk si ay làmp di xool moom njaboot nekk si si lëndëm loolu baaxul sama njaboot di naan ndox mu sell moom njabootam di dem di rooti si teen bi ba léegi loolu baaxul bon nag man bu ma ci mënee am pexe loolu bokk na si lu ma tuusee li ma si bëgg bu ma si mënee am pexe dama war a ñëw nekk si wetu père de famille boobu nga xam ne mu ngi si jafe-jafe bi pour gunge ko pour mu génne ci jafe-jafe pour que njabootam dund normal fekk ci sama njaboot ba ma ba ñu foog wala ba ñu jàpp ne mu ngi dund normal te jàpp naa ne ni mu ko waxee ak ni may dundee maa ko tane maa ko tane ndax man lu ma dëkk-dëkk si àll bi bu guddi jotee bu ma bësee courant mën naa ko am robine bi ñëw na fa te moom fa mu dëkk courant nekkul fa te ndox mi difficulté la bon man maa ko si côté boobu. lotissement rek nga ñu dafa am leneen lu nekk si ginnaaw loo xam ne da nga ko a def ngir mu doon euh, njëriñu waaw non xam nga lotissement dinaa ne li ñuy wax si sanc ndongo beneen programme la waaye programme bi nga xam ne tey jii gàddu naa ko te ba léegi waxaguma ci sax. boobu dafa ànd courant ak ndox loolu nag ni nga koy defee bi nga ko waxee dañ ne waa maire Darou Salaam bi nga xam ne amul luuma amut fu muy jëlee xaalis nan lay def ba régler loolu loolu c'est une très grande question bu ñu war a laaj waaye àdduna du lépp alal lañ koy yoree da nga gis ko yore alal te du mën a régler dara gis koo xam ne yore alal waaye yore pexe voilà léegi léeg pexe régler lu bari loo xam ne alal mënu ko régler ni ñu pexe woon ba électrifier téeméeri ci téeméeri million ak fukk ci juróomi dëkk noonu lañ bëggee defee pexe ba électrifier fii def fi ndox ndox mi indi nañ ko ba fii Daaru Salaam lañ ko jëlee xam nga li Daaru Salaam ak Daaru Anaan ay kilomètres la te foofu laa ko jëlee mënoon naa ko jëlee Nioro Nioro fi ndox mi nekkoon ak Daaru Anaan 500 mètres la natt naa ko xam naa ko natt fële xam ne ay kilomètres la lu tax ma jëlee ko fële ñëw autonomie la ba léegi moom sa bopp. moom sa bopp moo tax ma jëlee ndox mi daaru salaam indi ko daaru anaan tey jii ñoom bu leen neexee ñu naan ndoxum ñooro bu leen neexee ñu naan ndoxum daaru salaam waaye ndoxum daaru salaam a nga fa bénéfice la pour ñoom bon nag tey jii kanaal bi ndox mi jàll ne côté bi jàll ne côté bale kër Mori Diaw si laa leen jox Louga si lañ leen jox bon tiwo bi leen jox Louga moo ñëw daaru anan tiwo bi jox kër Mori Diaw mooy ñëw côté bi waaye bu waxtaan amee ñun ñi ko war a muy ñoro yëpp du jarati ma jëlee ji ko fële xacc ko indi ko fi dañ koy jëlee ñoro rek dugal ko fi mu gëna a ndax ndox ma ngi nii si seen wet soriwul bu dee courant bi aussi extension lay don dana gën a yomb bu fekkee né tay di liñ wax né mom lañ bëgg défal askan yi mu nga ca budget ren bi ci budget bi bo fa téwé war nga xol budget bi ba xam waajal nañ ndox extension ndox après bi ñu bi ñu lotiree fii ba pare war ngaa xool si biir budget bi Nioro bi ndax waajal nañ courant bu ñuy yokkee jëmale ko foofu loolu yëpp dafay wonewaale jéego bu ñu bëgg a defal sanc ndongo bu fekkee ne waxtaan wi ñuy wax ne téye nañ ko te war nañ ko bëgga a bu ñu boolee sanc ndongo si seen bopp li may wax ne nañ ma baal nag bala ñuy wax ne maire mu nga créer maire ju Nioro déedéet dama koy joxaale sama xalaat rek budget bi boo ne damay waajal pour defer fii da nga koy da nga koy ndëxiñaale si biir waajal courant waajal ndox pour mën ko si yokk loolu nekkul nag ñun Daaru Salaam li ñuy def fii nii incha allah rabbi danañ planifier loolu yëpp danañ planifier parce que ndox maa ngi fi courant bi soriwut ñu mën nañ ko def ni ñu koy defee nag mooy li ma bëgg a wax nii danañ ci danañ ci dana gën a yaatu ndax ay entrepreneur la ñu jël jox leen liggéey bi ñu def ko bu ñu paree ñu ne askan wi mu ngi noonu ñu séddale leen jox leen mu pare mu hmm. nag ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm ñëpp. Euh, yéen it nga xam ne yéen ñu tàllal seeni micro ñu ngi leen di sant ndax lii ngeen def nii dafay yokk xabaar bi ci ñu mënuloon a ñëw am na ñoo xam ne mënuñoo ñëw waaye à travers lii mën na tax ñoom ñu xam lu xew commune mairie Nioro mairie Darou Salaam ña fa des nga xam ne mënuñoo na ñëw ñi ma wax mooy conseiller ak njiit yi dëkke Daaru ak dëkkee ñooro moo bii mën naa tax ñoom it ñoo xam ne nii lii leen fenoon doon waxtaanee. lolé dana tax mu pousser dirigeant wu Nioro pousser dirigeant wu Daaru Salaam ba ñoom ñep ñu œuvrer pour que jamm am waaye ñu œuvrer pour que tay population bi choono yi ñu nekk ni ñun ñaar ñooñu ñu fexé pour jamm jamm ñu am ko waaye ñu fexé choono bobu joggé ko ci ñoom donc yéen ñu ngi leen ci santé bu baax di leen gërëm bu baax a alaykum euh Xewal gi TV ah. euh, man la Gataba Diagne professeur éducation physique euh, CM Nioro Daaru salam Euh, nga ñëwoon tey fekkee si ndaje bi nga xam ne monsieur le maire de Darou Salaam moo ko woote woon yow ñu taboon la pour nga jiitee ay kàddu yoo fi war a yëkkati nga ñëwaatoo ñu tuuti rek si kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko fi. waaw euh, c'est vrai wax nga dëgg euh, ay jours ci ginnaaw dañoo ñëw wax ñu ne ñu monsieur le maire daf fi war a ñëw donc bi ñu waxee ne monsieur le maire daf a ñëw population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii. Santhi Ndongo defoon benn jeune rencontre waxtaan noonu jël kàddu gi teg ko ci sama loxo pour ma pour ma waxal leen maire seen yobbante ak seen i jafe-jafe donc euh, bi ma jëlee kàddu gi aussi ginnaaw bi ma nuyoo maire gërëm ko sant ko ci déplacement bi mu def jógee ko Daaru Salaam ñëw fii te mu mënoon ñoo wax nañu ñëw leen ngeen fekk si ma def ko mu ñëw fekk si ñu ba fii nii ñu rafetlu ko trop parce que bàyyi na taal na otoom làkk na essence am ñëw na bi mu aussi deglu nañu bi mu ñu aussi euh ginaaw buñ ko remercier ba paré euh, on a reconnu vraiment mom limu li nga xam ne ko dans la commune de Darou Salam les réalisations que le maire lui-même a fait dans la commune de Darou Salam motax biñu déggé lolu nonu ñu ne ah comme mom mo fi ñew té bi mu ñew wax nañu ne mom mo moo war a lotissé fini vraiment ñu dañoo sante yalla parce que li tax ñu sante yalla moy xam nañu hein détermination bi mu amone ba détermination bop lay am ba fini, c'est à notre bénéfice nous. ñu waral ngeen dëkk foo xam ne guñ ko juin guñ ko. à jafé je suis né le 27 juin 1976 ici à Nioro Je la sam papa dëkk la dëkkoon je suis ñu fa ma juin fa ak samay grand frère ak samay petit frère ak samay sœur ma am ñaari jabar sama grand frère am ñaari jabar. sama frère yi kenn ku ne am jabar lotissement euh, kii HLM euh, seen habitation yi xam nga nu mu demee trois chambres salon la ci kër yi mag trois chambres salon ma ñaari jabar sama sama mag yor ñaari jabar samay frère yor jabar sama sœur nekk fa difficulté la vraiment pour ñu dund ci condition yi noonu benn néeg nga fay am wala ñaari néeg maximum di buux di buuxanteeg say say doom condition de vie du demee noonu précarité bi mu ngi foofu noonu éducation yi du mën a demee noonu Donc on était obligé à un moment donné de quitter pour aller au moins sauver ce qui nous reste. Ce qui nous reste, que nous sommes fait, ce que pour mon veille cette éducation. C'est motax nous nous avons fait. On a fait des demandes dans la commune de Nyoro parce que Nyoro lañ fait des judo mais on a à chaque fois que nous annonçons y a lotissement, on fait des demandes mais vraiment on ne nous pas des parcelles. C'est motax nous nous ko fait. Nous ñew jënd euh, fi ci yi pat mais lotissement bu war a ñëw dina am ay yoon yu ñuy génnee mbedd yu ñuy génnee ndax bu dalee seen kaw yéen pare ngeen pour muñ ko. mais bien sûr bien sûr parce que euh, bi ñu fi dëkk xamoon nañu ne ah, fii nekkul loo xamante ni yoon moo ñu ko may mais dañoo ñàkk pexe moo tax mu ñoo dëkk si fii nii. kon buñ lotissement ñëwee fekk ñu fii yoon jaar yoon jaar fi ñu dëkk dañ koy nangu. dañ koy nangu bu baax a baax te xam ne ñun ñoo nekkutoon ci yoon mais kon bu yoon bu ñëwee ba jaar fi mu a jaar dañ koy nangu parce que